jàngale bu moo tax lii défi la ci indi réponse ci loolu njàngale bàyyi laay yi buñ ci sàggane daal nee naa limaam indiwul lu ko war a sori lu mu digle ko war a jëfe mu laaj na gëstu lu tax mu laaj gëstu ndax lu ci bëri dunduñu ko am na ñu def yitte di dund ñu fexe ba nga nangu ko xam ne da lay dimbali boo jëlee kurus laxas sa loxo sax mu ne la bàyyi laay da koo tere nga am euh, woyo fukk bàyyi boo toogee farankulaayu mu ne si naaj daf ko doon tere nga am woyo fukk ko nga xam ne loolu moo lay jëriñ ak mm-hmm. te yooyu ay sew sew la yoo xam ni bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam daf ko jàngale ba ci booy lekk kudd gu nekk nga wax bismillaahi rahmaani rahiim yooyu yëpp ay ngëneel la kon nanu fexe ba laayeen dafa war a xam démb xam tey bu fekkee ni sam jàng dafa yem ci démb rek day am lu des maanaam tarbiya bi nga xam ne mooy tarbiya laayeen dafay des da ngay gis suma genre yi bi bu ñu lu ci bari dañ ah la nangam la nangam kon loolu war nañoo am ay daara yoo xam ne yu mel ne lii ñu war a samp nga xam ne dañ ciy tàggat xale yi ci loolu tàggat leen ci ibadaati sayyidina imaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam bàyyi lay bu mu dee fekk na fi lu baax waaye dafa indi li gën te loolu bàyyi lay indi nag dañ ci war a téye law kaanatu shamsu bi an juumi mu maasi la tag la kaana tal'atu wa uryaana nafiaat kon foofu laa bëgg ñu ñu taxaw ci Baye Baye la dafa wax ne jant bi ak utile bu ñu bokkoon njariñ kon fenku jant bi du am njariñ kon waay waay ngal la waay ci cadre spécifique boobu may analyser communauté bi mooy nañu delluwaat ci njàngaleem Seydina Limaamu Laay mag di ko fàttali sama bopp consultation di di di malade euh, yore cancer nga koy fajal euh, loxo bu foxet da ngay songu feebar ba nga xam ne cancer feebar bu féroce la nga songu ko traité ko faj ko kon bu ko defee ñu ngi ni tey ndamu islam la wallaahi ba ma ko déggee ba tey ak mbégte laa am ba muy xëy tey di ci bis ni dama ci ñëw. ak mbégte ndax Baye Mamour Diakhaté ndeysaan mu ñu jóge démb doon ko ziar dafa wax ne diine nag bu loof la nag bu loof la nee na fu nekk moo koy yëkkati ku nekk ci tam kon daara yi dafa war a bari kër mu turé nit ñi war nañ fa seen ci daara siiri bu ko war nañ fa seen ci daara mbuur war nañ fa seen ci daara kon lii seen Cheikh def tey yàlla nay ubbeeku ba ci adduna bi yëpp ci réew mi yëpp incha allahu ay daara am fa yoo xam ne dinañu faj nit ñi faj leen ci seen i feebaru ruux faj leen ci seen i feebaru jikko te kon ñu ngi ñaanal ñëpp képp ko fi teew fa tabarakallahu jóg nga ci jihaad al islam yiw yooyu yàlla na nu ko yàlla nangul yàlla na nu ko yàlla nangul yàlla na nu ko yàlla nangul allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. ana waa daara ji def leen nii. tabarakallahu jërëjëf oustaz Mbaye Bass waaw